kontante rek ci dajewaat fii tey di accueilliraat locomotive yi nga xam ni moo ngi jubluwaat ci cadre relance activité ferroviaire Dakar Tamba. comme ni ko président waxee woon février passé ba euh, euh, liggéey yi nga xam ni ñoo jëm ci euh, dekkalaat saxaar gi ñoo ngi dem ci anam yi nga xam ni weesu na sax ni nu ko xaare woon ba tax na équipe yi nga xam ni yëpp.

le euh, euh, processus bi nga xamni mo fi chemin d'affaires, la privatisation intégrale Ce mu ko defee li tax ko c'est pour permettre au chemin d'affaires d'acquérir de nouveaux financements et d'avoir un cadre organisationnel qui favoriser les mën qui def ay copar yu koy dekkalaat lolu permettre tay Sénégal mën a defar teeram moo permettre Sénégal tay mën def ben projet ferroviaire bo xamni ni ko teunk ci juroom ñetti ligne ferroviaire yo xam dina tolloog ñaari junni ci ay kilomètres euh, de euh, voie lolu lepp nak suñ fi bàyyi woon cadre bi fi nekkoon duñu ko mën relever tayit gis ngeen étude yi ñu commencé pour def par plateforme logistique bi nekk Tamba di am du doon lu am solo ci ni nga xamé ni Sénégal non lay mëna sédalé marchandise yi jëm ci biir réew mi ak yi jëm ci bitim réew lolu nax mënu ko gisé nit mu afficher ko ba paré décaissé ben enveloppe 17,8 milliards daa di commencé djégo bu am solo bi nga xamné moy déclarer Dekalaat bi fi ak Tamba lolu do mën ludul am yaakaar ni ki kat amna na ju wër ci chemin d'affaires te li nga xam ni moom lan wane nii suñ ci taxawee yaakaar naa ni Sénégal dina nekkaat fa mu nekkoon ci wàllum saxaar loolu nax tamit il faut que ngeen xam ne li muy bi muy metti yëpp euh, mësuñoo bàyyi liggéeykat yi tamit ñu nekk ñoom kese dañ leen a mës a assister ba nga xam ni tey condition yi nekke woon yëpp malgré activité amul ont toujours été acceptables ba ni ñu pour reverser leen ci société bu les chemins d'affaires du Sénégal loolu tamit su amee mënuñu lu dul di ci jaajëfal di ci euh, manifester sunu reconnaissance ci jëwriñ ji nga xam ni monsieur Mansour Faye ci taxawaayam ak compréhension ak assistance bi nga xam ni depuis toujours di wax aussi ni kim fi ki président monsieur le ministre mu président ni lim fi defagul ci ay euh, cheminots yi fi en matière de restitution des droits du travailleurs donc nous mobiliser pour le travail pour que les investissements consentis par l'État du Sénégal ne soient pas nuls. donc que ñu li ñuy séntu ci chemin d'affaires, fer yëpp ñu am ko. vais jërëjëf donc damay rafetlu euh, suñu taxaw bi ñu am tey doon xool liggéey nga xamni président Macky Sall moko ko euh directeur général bu chemin d'affaires du Sénégal diko liguey and ci.

waaye lu am solo mooy dañoo gis ni eh, maanaam les cheminots fii ci Thiès maanaam gis ni kat ah saxaar si kat dana commencé at daw loolu dafa indi maanaam ci kanam parce que président ñëwoon na fi Thiès conseil des ministres décentralisé jël ay engagement bu njëkk mu la question sociale maanaam d'abord cité Balabé nañ ko jox les loolu defena ni presque de parce que lu ci dess dotul dara ay fan new les ayants droit dañ jot seen ay titre mom keur yi nga xamni mom lañ leen affecté définitivement. Mais engagement bi moy la question sociale mooy kat yi nga xam ñu ñoo ñi chemin de fer ni euh, ci raay bi ñoo ñëpp euh, au niveau effectivement de DBF donc ñooñu dañ leen reversé au niveau de chemin de fer SA té processus boobu jeex donc question sociale yep léegi régler nañ ko dala nañ seen xel ba fi représentant des travailleurs taxaw léegi dégg ngeen ko wax na ko donc lo satisfaction totale la lu ci dess rek moy liguey bi jeex comme niñ ko tambalé fi léegi décembre 2023 bi di ñew comme ça en janvier les trains marchandises trains marchandises la wax mën na jógee port de Dakar dem ba Tambacounda lolu mom jumtuwaay yëpp jël nañ ko dans dana daw bu euh, décembre bi di janvier 2024 train marchandise bi dana daw ñu war maintenant les trains voyageurs train voyageurs Le train xool ci peut-être voilà ay euh, mois yi néew xëy na année 2024 nan la ñu mën les trains voyageurs avec sécurité parce que train marchandise wute un train voyageur Il euh, ngay jël beaucoup plus de sécurité beaucoup plus de confort pour que les trains voyageurs Vous voyez, Mais avant bobo comme section Jess, Durbel, Touba dana nous avons xool nu ñu section bobolé mais en respectant les normes de sécurité tant que respectons les normes de sécurité nous avons les autorisations nécessaires pour les trains voyageurs. daw donc dans jël jumtuwaay yooyu pour que nous puissions de telle sorte que ni avons des mécanismes qui nit ñi mën nañoo jóge Dakar ñëw Thiès wala dem ba Touba wala dem ba Diourbel wala même dem ba Tivaouane loolu yëpp ñu ngi ciy liggéey ak les chemins de fer ak aussi avec les grands trains du Sénégal pour que le voyage mën na tàmbaliwaat nga xam ne économie bu doon am autour du rail économie boobu dun maanaam dëkk yu mu doon dundal dëkk yu mënoon dundaat ci maanaam saxaar si buy jaar ci dëkk yooy la donc ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax

ak Diourbel tey train dana de diggante Thiès ak djourbel wara continuer dem ba Tamba donc luñu tek bëd la donc lool mo wara findel firndeel que ni bu ñu décembre 2024 2023 temps pour moi décembre 2023 que ni travaux dans le janvier au plus tard 2024 tenen marchandise daw diggante Dakar ba ba donc loolu lu wër la té bu neexee yalla

wara jël articulation feulé ci téwone peul et puis ñu continuer que wuti Ndar c'est vrai que ray bi dem na ba Ndar mais la priorité d'abord moy la Dakar Tamba dañu étudier parti bi nga xam day joggé Thiès wuti Ndar parce que ray bi amna en prise xeyna amna peut-être faut xeyna am jafé jafé mais daay bàyyi ak orientation yi ñu les chemins de fer ñu année yi di ñew mo train bi wara mëna yegg fu mu yeggoon fële ci Ndar te gem naa ne buñ ci jubloo bu neexee yàlla dana yàgg